gis nga dans la vie sax ci nation dafa am temps yoo xam il foo nga def ay arbitrage et ça des prérogatives du conseil jeex na voilà il a des prérogatives politiques. voilà nañ def nañ def arbitrage jox Karim Wade mu nekk candidat. jeex na nit ñi bokk ñu dem. d'autant plus que dañoo waxoon et puis def ñu def élection bu mucc ayib xoolal xam man farewul ba Pastef de du ma leen mos a voter mais Bassirou Diomaye Faye dafa war a génn ci prison bi. ah bon oui. loi bi moo ne candidat yi bu ñu leen xasee ba teg cour d'appel dafa war a assurer wu ko candidat yëpp ñu ngi ci même condition yi pour mën a compétir de la même manière loolu mooy dëgg ça fait ay weer mu nekk ci kaso bi kenn jugé wu ko nañ ko may liberté provisoire mu génn campagne comme tout le monde. et d'ailleurs profite pour. Euh, euh, joxe une information hier ñun on a dans notre news euh, que l'avocat Abdoulaye Tine d'abord c'est pas Abdoulaye Tine euh, information bi source a moo ko joxee dafa ne l'avocat de de Bassirou Diomaye maître Abdoulaye Tall et qu'il tient ça d'un haut responsable de PASTEF dafa de déposer une demande de liberté provisoire alors moom nee na il tient ça d'un d'un haut responsable de PASTEF euh, l'avocat le seul avocat qui agit et au nom de Bassirou Diomaye Faye bien qu'il a qu'il a un pour d'avocat c'est maître Moussa Sarr et maître Moussa Sarr n'a pas déposé de demande de liberté provisoire pour Bassirou euh, Diomaye euh, Diomaye Faye j'ai été interpellé sur la question je me suis concerté avec nos confrères de Source A dont l'information a un peu été modifiée euh, par les sites qui ont qui ont qui ont repris ça donc au nom de l'égal euh, de, au nom de l'égalité des candidats Bassirou Diomaye Faye doit recouvrer la liberté. waaw xam nga man dama jàppoon ni sax Bassirou Diomaye Faye du bokk parce que recours boobu Amadou bu def mais loolu vrai recours la. c'était un recours fondé. waaw boo bokkee ci boo bokkee ci organisation mun dissoudre mënoo nekk candidat. mais ki ko euh, kan moo ko kan moo ko. Ah, investir conseil constitutionnel mais n'empêche que. non ban parti moo ko. investir bu investir seen investi seen investissement factice kenn doful mais loolu garaawul cest à léegi nekk na candidat dañ ko génne mu génn kaso bi yaa ngi dégg def campagne comme tout le monde Sénégalais yi décidé. mais le problème c'est que hmm. Bassirou Diomaye Faye bu nekkoon premier dossier bi. waraloon son sa première incarcération mooy son post Facebook là euh, tëdd na ci plus de six mois dañ ko war a libérer ah. mais dañoo def jonction entre dossier ah. ak dossier Sonko te buñ ko entendrewul mhm. ci dossier boobu mënagul prétendre à une liberté provisoire mais lan moo tax Ousmane Sonko qui était poursuivi pour viole crime ñu may ko liberté provisoire nga ni te juge bi daf ko woo rek may ko liberté provisoire. bàyyi ko mu dem nañ ko wow moom it moom nañ ko woo entendre ko may ko liberté provisoire mu dem campagne loolu mooy équité. parce que les recalés interpellé nañu le président de la république mu ne euh, c'est la justice qui décide na ay avocats am daf les les les démarches. est-ce que mën nañu am yaakaar sur une liberté provisoire. non man xam nga nag man du ma du ma du ma nettali géntu jàmbur. luñ ma waxul ma ko xam te loolu kenn waxuma ci dara. mais dama jàpp rek nii dès lors que dem na ba franchir procédure yëpp quel que nag par ay parce que candid validation candidature moom ci droit mën nañ cee wax lu bari mais débat boobu dépassé nañ ko parce que conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy àtte ñu war a nekk candidat nee na Bassirou Diomaye Faye candidat la comme candidat la nag dafa am principe boo xam ni ci droit électoral ñëpp xam nañ ko principe de l'égalité de chance de tous les candidats maanaam candidats yépp ñoo war a yem chance ci wane jaay seen bopp wane seen programme pour buñ leen pour ñu pour buñ leen waree tànn ñu tànn leen donc ni ci candidats yépp amee droit noonu la amee droit donc nañ ko génnee dañ ko entendre may ko liberté provisoire mu def campagne am ci condition yi mu bëgg Sénégal yi tànn lu tax nga ne euh, la validation de sa candidature on a on, on peut en dire beaucoup de chose mais parce que Bassirou Diomaye Faye Pastef la bokk. conséquence dissolution mooy képp koo xam ne nii dafa bokkoon ci parti bi mënatoo nekk candidat à quoi loolu mooy réalité bi mais bon loolu débat bu ñu dépassé la parce que de toute façon conseil constitutionnel mooy décider kuy nekk candidat ak ku nekkul candidat conseil constitutionnel décidé na ni Bassirou Diomaye Faye candidat la dès lors que candidat la li candidat yëpp am droit moom la am droit dañ ko génne mu campagne normalement. est-ce que euh, déjoué wu ñu say euh, say say pronostic avec euh, la présence de Bassirou Diomaye parce que da ne woon Pastef wala ku bokk Pastef du am. candidat non dama ne woon li ma waxoon dafa leer forme bu leer laa indi dama ni. li yóbbu Sonko du fi bàyyi Bassirou Diomaye Faye du loolu la waxoon. Mhm. liiral recours Amadou Ba bi di nga xam lan moo tax moo waxoon loolu. et Amadou Ba a été très cohérent parce que ñu bari ñu ngi koy reprocher lu tax mu def recours mënul contresigner décret bi nga xam ne moo dissoudre Pastef ba pare du ci tirer ay conséquences décret bi dissoudre Pastef moom moo ko contresigner. donc say recours était <laughs> franc. donc ku bokk Pastef da contestation mën na def recours contre moom que kii warul bokk. alors Ousmane Sonko. mais loolu grave xam nga xam nga xam nga ñun ay analyste lañ man damay analyser ci droit man su ma doon conseil constitutionnel tey di analyser ci droit xëy na mën naa jël beneen décision bu conseil constitutionnel jëlul par exemple cas Karim Wade bi d'accordu ma mais dès lors que conseil constitutionnel jël na décision ba pare ci Bassirou Diomaye Faye léegi il est dafa war a am possibilité wane offre politique am